Euh, jàngeen ngeen jëfati mbokk yi wuy ànd ak ñun di ñu déglu euh, ñu ngi daal di amaat mbégte gu yi comme ni ñu ko di baaxoo di ko defee saasu ne si seeni jataay waxtaan wi nga xam ne dañ ko jël jagleel ku lu jëm ci wàllu bio di ci indi ay tegtal yu wóor ci leer yenn jàngoro yi rawatina jafe-jafe yi nga xam ne askan wi nga xuseen ak ñoom te ñu gis ne ba léegi ñàkk xamit tegtal yi ñàkk xamit màndarga yi moo waral ku mu ci daaneel ku ne indi lay tolof tolof ci sa wàllu dundin ci sa wàllu nekkin ak ci sa wàllu doxalin mbokk yi sant yàlla daf ñuy war sasu ne ndax borom bi lépp lu mu wàcce lu ne am na lay saafara te lépp luy saafara lu ne borom bi def na ci ay facultés yoo xam ni nit ki ci boppam su ko gëstoo teg ko ci yoon mën nañu am njott ku rafet ne su ko tegtalee ku nekk foo nekk su ko jëfandikoo borom daal di saafara mbir yi. mbokk yi duñu tay di ko wax dañu ne jàngoro mooy noonu njaboot tëgg la waa luy noonu si njaboot suñ ko seetaanee bu yaatoo mën naa tilima réew kon ku ci nekk ca looy nekk di doxal war ngaa mën a yëkkati kàddu yuy jariñ loolee bokk ca lay dimbali réew mbokk yi dañu daal di ñëwaat indil leen beneen fàkkuteef gu amit solo xam ngeen ne loolee ñuy tuddee crise épileptique muy crise goo xam ni mën naa dal gone mën naa dal mag te fu mu la dalee mën na la indil ay jafe-jafe ci wàllu nekkin waaye sant yàlla ndax am na ci lenn loo xam ni lu bees la ñu fas yéene ko indi nag baaxee ko kiy déglu ngir mu mucc ci loolu ak ki nga xam ne mu ngi koy dund mu def ko ngir borom bi dimbali ko kon mbokk mi déglu jëlal sa bic ak sa feuille bul ko tàyyi dinaa la wax faculté fii soo bëggee mucc ci crise épileptique yow mi koy am am ko di ko dund soo bëggee borom bi saa di saafara seen mbir jëlal bi ak fëy te soo noppee bul ko téye partagé ko du ñàkk ne am na keneen ku ko soxla ah, mbokk yi xam nga li nga xam ne moo di nebedaay moringa nebedaay du lu bees ci réew mi sax na fi yàññ na fi waaye nag dinañ leen ci wax mbóot ma ca nekk bari nay mbóot waaye dinañ ci jukki benn boo xam ni njariñ li lu ñu fësal la lu ñu wanee la muy li nga xam ne moom moo di nebedaay ci biir nebedaay dinaa la ci wax ñenti mbir yoo xam ni bindal benn wutal reen wi lu yam wutal ci xas mi lu yam wutal ci xob bi lu yam wutal ci fleur boobu lu yam lu yam maanaam mooy jëlal sa ngëbu loxo ci reen wi nga teg ko ci boolu un litre et demi nga jël ci xas mi sa loxo def ci nga jël ci fleur sa loxo def ci nga jël sa xob bi ci loxo def ci soo noppee nga daal di raxas ba mu set nga wut sa butéelu un litre et demi jël sa kasteloor boo xam ni matière bi du pakoti ndax matière wi ngay baxalee mbir su matière wala liggéey ba dëgërulee rek mën naa indi ay njeexital ca la ngay defar moo tax yenn kawdiir yi dafay am solo ndaxte kawdiir yi matière googee togg bañ koy togg loolu rek am na lu muy indi ci paj mi ndax boo gisee tey feebar yi bari lool ndax kawdiir yi ñuy toggee amul qualité kon wutal kawdiir gu baax nga jël lépp def ko ci raxas sotti un litre et demi soo noppee nga daal di ko baxal ba mu bax suba baxalee nga mel ni kuy togg sab kénkiliba upp ko soo xëyee suba la matin nga jël si kaas bi ngay ndékkee nga sotti ci tàngal jël sab suukar suukar nga ndékkee ko mu doon sab dute soo ko dee def yàlla mën na laa dimbali nga mucc ci loolu di crise épileptique soo ko dee def am crise épileptique yàlla mën na laa dimbali mu daal di mucc yow mi koy def te am ko na nga bàyyi xel ci na ngay doon daanoo ak bi nga ko tàmbali kon mbokk miy déglu lii bul ko téye de wusaare ko ba ku ci nekk jot ci ndax jàngoro mooy noonu njaboot te bu yaatoo silma réew 77 244 98 05 mooy numéro téléphone bi aboneel soo noppee ci page Facebook bi nga abonné tamit ci YouTube bi suñu chaîne YouTube bi cliquer loolee nga xam ne mooy lu ruus loolu ngir bokk ci nga xam ne saa bu ñuy ndee fàkkute nga jox kon ma taamuwaat ko ba bamtuwaat ko maanaam garabu nebedaay wutal ci reen wi ngëpp wutal ci xas mi ngëpp wutal ci xob bi ngëpp wutal ci fleur bi ngëpp nga raxas def ko ci un litre et demi kasteloor gu baax nag nga baxal ko soo noppee nga bàyyi teg soo xëyee suba nga jël ci kaas ndékki su ngoonee su la neexee su dee da ngay ndékkiwaat gute nga defaat soo koy def yàlla mën na laa dimbali kon mbokki loo leen indiloon tey ci fàkkuteef gu am solo di ñaan mbokk mi déglu ko seetaan